feneen waaw tey ñu gis coow li bëri na ci Wally yaakaar na loolu du lañ lay wax mais gis nañ ñi nga xam ne dañuy topp Wally guddeeg bëccëg saaga ku mel ni damay tudd turan ah ak nga xam ne mooy xalifa rappeur topp wax ju bo ndax lan da nga dégg Wally génn wax waal du ci wax mukk ba ba muy dee du ci wax kon nag ñun noonu la ñuy mel du ci wax mais nag non xam nga ay six mille dafa six mille problème jàkkaarloo caméra xam nga ay six mille problème mhm. ak xaw ma nan keneen. xalifa rappeur xalifa rappeur. Fla Bella nekk instant yi dafa raté laay fam. ñooñu. maa koy wax euh, boo leen tontoo. ça veut dire que da nga may buzz. maa ngi tontu mais yéen yéen ñeneen xa ndaw yi ñëw. moo ko leen may ma tontu woo leen. mais da nga yee ndaw yi ñëw. ba ñuy jàpp ne loolu mooy àdduna ñoom li ñuy def du fekk loolu raté raté live la. ñoom dañoo waroon nekk plan B raté plan B lañ nekk exemple waroon nekk pla A plan B lañ nekk instant dañoo raté seen live. àdduna ku bëgg ñu dégg sa tur. Mhm. faaw nga jaar si waali Mm-hmm. buzz xool caméra bi day may buzz. da koy maye gratuit. mais buzz bi baaxul. buzz bi même bu baaxul. non ana mais ana ana ñu tey. mais lii du buzz sax pour man. voilà lii du buzz. voilà ana ñu tey. ñu ngi nangu sun. ah ana ñu tey ana seen téléphone di waxee lu bon tey. ah keneen téye na ko seen moroomu góor. te que problème mooy da for nekk ci téléphone te di nga toog foo xam ne sa moroomu góor ma andi li nga téléphone bi toogal fee. tëddal fee nga tëdd fa mais kon kooku. bu paree man Khalifa Rapport laa li wax amul fit bu man bu may dem bay wax man dama naan mëneeru mais ay nangam di tudd ay mais loolu tapet moo koy def pour man wax naa ko benn émission ni da ngay direct. nan leen nan leen nan leen bàyyi ni ñu nekkee rek nu ñu nekkee loolu moo leen war waaye ñun nu ñu nekkee ñun liggéey la ñu xam. <laughs> xëy suba sañ si ba kontaan. Mhm. yor suñu rafet yor suñuy ay ay suñu suñu téléphone yu cher. Mhm. def jalan suñuy bopp ba mu naay takk suñuy seen or yor suñuy oto ay oto oto ay trois cent cinquante millions. Mhm. tabax suñu këru un milliard. Ah, di dox di xeeñ parfum yu cher. di dox di génn. ah nit ñi dañu bëgg di ñu gis te top ñu kenn wali dal mo wax leen wali dal moy nit ko xam wali du nenu nen ma waxat leen ko tay ba pare barke Serigne Bamba Mbacke ma ngi lay waxat tay ji nga xam ko nee lan buñ doon saga wali wali waali fukki ata juroom wali du leen faale non mom kay xam naa xana ñeneen ñi mi wali du leen faale wax dëgg yàlla man mi rek di wax ak yow mais neexul problème leen faale man mi di wax ak yow bu ma six mille saaga woon tey ko faale non deug la mais problème moy du yeen ndax ñom dañ leen di fay dañ leen di dañ leen di fay noo xamee dañu leen di fay. waaw yow borom bët bu bon boobu ku ñu naan xaw ma suba teel xaw ma maxu. waaw da di fay pour ñu wër di génn. mais mais attends attends li nga wax ah, mais dama gis benn image. waaw euh, Khalifa rappeur di yëkk Sidi Diop lu mel ni xamee. mais ma gis benn image xam naa naa ko jox parce que mu teg ko ñëpp xool ci. ma image bi mu dem kër suba teel. musique ma gis image ak photo yi ñu ànd ak ñoom suba teel ak yooyu mu xëy. di ŋàññi waali di ko saaga. waaw mais kon lool li nga wax noonu dafa koy bëgg a firndeel kon. dañ leen woo jox leen ay kase kase saaga. waaw kase saaga ñoom kase saaga ñoom kase saaga lañ am. subhanallah yal nañ ci yàlla musal. waaye ki leen di fay kooku moo war a xam boppam. mais mu ngi lijjanti affaire moo war a am personnalité. moo war a am dignité moo war a nekk mag. Mm-hmm. dem wuti leneen lu mu def. suba teel heure julli laa si xam. mag ñi dañ daan yeewu suba teel dem julli ji. ba mm-hmm. nga jël tur suba teel boobu di ko def ay label. ko foofu la dafa ñu ko toon yàlla. mais mënoon mën na ko def labes sax. mais loolu dafa njëkk a toon yàlla. suba teel li ma si xam mooy mag dañ daan yeewu suba teel dem ñii dem rooti ñii dem bay tës. Mhm. ñii dem dem dem dem dem def def def dem teg malaanu wësi. te li may wax suba teel maanaam tur bi. suba teel dafa barkeel mais maanaam kon ni mu ko defee moo moo moo dul defu waay. barkeel Serigne Bamba Mbacke maa la ko wax fii ne du ma yàlla de mais suba teel du àgg sax fenn du dem fenn man maa la ko wax tey. du dem fenn si àddina parce que dañuy xeexee. du ñu xeexee de si suba teel waa ji yowum suba teel moo respecté wul ay miliciens moo leen bëggul daf leen bëgg di xeexee. dañu bëgg di xeexee daal. waaye ah, nag ki ñuy xeexal. laay laay mais <laughs> kooku la ñun ñun kii kii xeexal dafa baax waa lii kenn xamul. kooku de yëguñu sax kooku. yëguñu sax ni moom yaa ngi xeex moom kooku yëguñu sax ñooñu am nañu. ngay xeex muy gën a avancé. mais doo arrêté sax kooku kooku ñooñu sax am nañu. boo Abdoulaye Daouda Diallo si saa si. ndeysaan ne ko mais mu ne ko mais mais mais monsieur le ministre. Hmm. la gël la ah. président bi mu bi ko Wally waxee bi ko Wally waxee ne ko. Mhm. liggéey lu bari wax lu tuuti jëf lu bari wax lu tuuti. <laughs> ndeysaan wax bu daw yaram président dafa xoolaat booy bi. image boobu dama bëgg ngeen seetluwaat ko bu baax dafa am benn kilifa gu ma ko wax mhm. dafa xoolaat booy bu baax a baax mhm. woo Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances moom moo jege président bi mu ko woowee dana ko mais mais mais li booy wax ni it tax jël nga li mu wax analyser nga ko président fi ñu toll loolu lay utiliser fi ñu toll dëgg la c'est vrai loolu la du wax joob la affaire du wax ay fii la ay affaire du wax. ñun deretu faram maarin mooy daw suñu yaram mooy daw suñu yaram amul beneen deret buy ñëw suñu yaram ci àddina barke yenent bi te maa ngi lay xamal leen mun yàlla dimbalee incha allahu rabbi mhm. xaw ma si biir xaw ma avant koor gi lay doon xaw ma après koor lay doon mhm. mais di nga gis lu garaaw lu extraordinaire. lu booy bi job job bu doy waar. Mhm. teg ko si ruq bis bu ko génnee àdduna day tukki. ndeysaan man maa la wax loolu. àdduna day tukki. sax mais àdduna si boppam mooy naan tell. Mhm. mu ngi ko jenc génne yi wa affaire yu doy waar. ndeysaan waale liggéey la xam. li ñuy pare macha allah yaakaar naa waale liggéey la xam waale am na quatre studio. surtout ci musique waale Kaw Saalam am na studio. Mhm. liggéey rek Papis Ndiaye. comme bu jugee studio Papis Ndiaye kër papa am na fa studio tey lii ma lay wax kër papis ndeysaan da nga wax studio papis Ndiaye mën na ñàkk a dem kër studio papis Ndiaye mais xam lan moo tax muy def loolu dem kër papis Ndiaye gore xam ne kër papis Ndiaye la woon démb koo koy kilifaam avant lii koo koy kilifaam di kilifaam papaam dénk ko ne muy lépp tey ah, koo koy kilifaam macha allah tey liñ dëgmal ci wàll yi bari na mhm. gis nañ macha allah mënuñu ko lim tey kon fi la ñuy fanaan mais ñuy gis mu jógee Mbour barki dem la gis nga la fa am may euh, nuyu passage euh, ki nga xam ne mooy euh, Karamba dinaa ñëw ci moom tuuti Karamba Marade Karamba borom jinne yi. gis naa ko si man la njëkk ñëw ci yow la njëkk a ñëw merci beaucoup. jaajëf si man la njëkk a ñëw. ma taxawoon nga ko doon. waaw Karamba dafa si man ne ma man faramaareen laa. Mm-hmm. ma ne ko faramaareen nga. may si Njaay def ko si mu yëg kaw seen. Mm-hmm. yàlla ko yàlla dimbali yàlla ko yàlla taxaw. Mm-hmm. xam-xam bi mu nekk yàlla ko suñu borom yokkal. mais ku bëgg du Karamba kase nag. dëgg la. ku bëgg wa ñëpp a nga a nga fa woon mais damay wax tuuti karamba rek ku bëgg waale ngoo waaw dem na far bak dem fa laa jógee am na lu ma yóbbante ci waali mm-hmm. tey wax naa ko pakoo te dina waali dina ko dégg mm-hmm. ku bëgg waale ngoogu waaw sama kanam barke si xam naa si dara ku bëgg waale ngoogu xam naa si dara koo xam ne amul sago ci waali xam naa si dara nag macha allah yàlla may ko solko ko lim ko may jàng ko fee muy xam-xam bi day def léegi nga gis léegi malade bo mën di andi nu mu ak faveur bu mu am mu fajj ko legui legui ci tàng tàng tàng bi. xamna ci dara te dafa bëgg wali am na lu muy pour wali inshallah inshallah waaw xamna ci dara mhm. euh di nga mbuur boobu ngay wax. Mhm. sunu frère sunu mak ku ñaan Ahmed Diouf moko teggoon Ahmed Diouf ndaysan sama xarit ku baax. legui wali dafa doon ko xamne legui borom mbuur dekk bu muy dem legui dafa am dafa am ko xamne mom la ngeen baal ma nag du du du publicité. non yow fi nga bokk muy waa Wave. non non wax en Wave. waaw Wave dañuy Wave sax xaaral a foofu tuuti Wave. gis naa sax Wave dañuy Wave. waaw. wasaare TV dañuy Wave wasaare TV. waaw di Wave wasaare Dakar midi. waaw di Wave Click Dakar 221. loolu waali Wave léegi moo ne chaque ñëw jël ci waali. jeex na Wave day ñëw jël la ànd ak yow si bis bi accompagner la jàppale la. Mhm. ba pare foofu bëri woon ay kilifa yoo xam ne dañoo làqatu woon mhm. kilifa yoo xam ne bu ma leen waxee fii seeni tur da nga naa ma déedéet mhm. kilifa yi mbuur yëpp a ngi foofu noonu mhm. kilifa yi mbuur yëpp yëpp yëpp yëpp a ngi si kaw taabul yi ñu daal di teeru booy bi teeru bu rafet yàlla dimbali nañ nag liggéenti woon nañ stade bi ñu ne stade bi duñ ko joxe ñu daal di dem xaw ma feenee nu mu tudd fañ ko doon defee fu mag foofu daa ko fay def mu doon réussir bu baax ñi may ñi ñaan am na Diouf yàlla na ko yàlla dimbali taxawu ko ñi préparé nag mhm. Louga bi Louga bi nag di nuyu Baye Sall dafa doon loo xam ne xool mhm. leen waa li mu defati rek Louga bi da ngeen teg daaru muxti waaw mu puus bosam teg daaru muxti barki démb Ndiaye bi mu waree mu da ngeen teg kas rajak da koo puus tey nag waaye kii kii kii tey nag dafa am loo xam ne dafa xew moom laay tëjee. Wally qu'est-ce am loo xam moom laay xew moom laay moom laay wax moom laay tëjee. parce que temps bi waaw. waaw ndax sunu papa. yal na ko yàlla xari àjjana. ndeysaan papa yal na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. yal na ko yàlla xari àjjana yal na ko yàlla yërëm. mu liggéey lépp ci àddina yal na ko suñu borom jox. Mm-hmm. fa mu tëdd tey jii yal na doon bànneex bu rëy ci moom. Mhm. tey jii la ko nit ñi di fàttaliku tey moo tax tey ngeen gis amul benn image bu génn tey si Wally pour mu wane ne day jouer si bi mhm. waaw loolu looloo tax weekend bi Wally tey dafa off weekend bi dañuy ñaanal suñu kilifa sunu bay sunu papa coon fa mu tëdd yal na ko yàlla xare ajjana yal na ko yàlla xare ajjana yàlla yàlla yaatal bàmmeelam yal ko yalla xari aljana yal yalla yalla lepp lu mu ci adina yalla yal ko sun borom jox ak sama bay manit fa mu tëdd moom yal ko yalla xari aljana yekati ko yal ko yalla xari yalla bambe ñep ak mboolem jullit mm, moo ko nek ci kaw suuf maa ngi leen di leen sante Muniru Faramare ni ngi nii mm-hmm. Muniru Waly Ballago Seck ni Muniru mi xexal wali guddi di xexal wali beccak kenn moma ñor muy wali bëgguma ma Samba bëgguma ma Demba Wali, point Sénégal yi mënul wax kenn moo ma ñor Wally Ballago Seck Wally point kon tey la ñu amoon tey seen émission tey fii ci teeru bi tey ñu fekkoon benn daanaan maxalla macha allah muy Faramarende Faramarende muy Mounirou borom Thiès yaakaar di euh, xarit Wally Ballago Seck di léppam kon la amoon rek beneen yoon. te fi ma loosee fi ma nekk nii moom moo fi loosee de. moo moo waaw waaw damay def émission mu ne ma dama teeru bi nga la toog waaw kenn day moom ci réew mi. barke sëñ Ba jaajëf